2024 Ousmane Sonko mi nga xamante ni ñu koy tudd euh, ci wàllum euh, mœurs soulèvement bi nga xamante ni ñenn ci militants yi amal nañ ko problème mu emploi ak yeneen i ponk yoo xamante ni soxal na actualité bi ñu ko waxtaanee ak kile di Assane euh, Diop nekk coordonnateur bu PASTEF ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm PASTEF bu Rufisque. waaw Ndeye Comba maa ngi lay nuyu di la sant ci invitation bi. Mhm. voilà balaa may tàmbali damay nuyu bépp sénégalais euh, di jaale ñi nga xamante ni ñoo am ay mbokk yu wàññeeku ci mbas mi. Mm. voilà di nuyu sénégalais yi ñuy déglu yëpp di nuyu patriotes yi di nuyu sympathisants yu Pastef yëpp. voilà ñu ngi lay remercier ci sa disponibilité euh, tey ji Assane Diop laaj bu ma lay njëkk a laaj moom mooy Ousmane Sonko <clears throat> lan la la inspiré exactement. waaw xam nga ñun Euh, d'abord ay ndaw lañ man ci ci ci France jeune laa bokk mooy ñun ñëpp dañu gis ne depuis indépendance à nos jours mhm. politique bi ñu doon faral di gis Sénégal ba léegi moom la ñuy gis mhm. maanaam su ma ko mënee méngalee day mel ni benn train boo xamante maanaam locomotive tout le temps rek bopp bi la ñuy changé mais li ci nekk li ci am yëpp moo ci nekk dara changé wul ñu gis ne boobu ba léegi wàllu emploi des jeunes wàllu développement ak lépp loo xamante ni dafay jëm ci suqali réew ba léegi dafa mel ni ñun nous sommes enfermés dans un cercle vicieux de stagnation mm. ñu jekki saay nag gis un leader bu jóg mën naa ni ki sort de l'ordinaire parce que nit ñi defuñu nit ñi jàng nañ jeunes yi ñenn ñi étudiants lañ ñenn ñi jàng nañ ba am ay yenn lijaasa nit mënu leen nax bu ñu ñëwee ba dégg un leader muy tenir benn discours bi ñu gis ci moom que ni mosuñu koo tuumaal ci lenn mu am place boo xamante ni fa la nekkoon nga xam ni saaku ceeb buy jar cinq cent mille sax mën na koo jënd. Mhm. mu bàyyi loolu yëpp ànd ak askan wi ngir bëgg teg Sénégal ci ay raayu développement. donc loolu moo ñu motiver ñun ba ñëw ànd ak moom donte gis nañ fi ay politiciens yu bëri ay parti politique yu bëri yoo xamante ni yàgg nañ fee nekk te politique ñu bi Ousmane Sonko ñëwee moom moo jubale sénégalais yi ak politique. Mhm. loolu moo ñu inspiré moo tax ñu topp ko ànd ak moom ci dëgg nag ak mais li ngay wax ni yow mun na de tenir un discours fii ñu fi nekk candidat wala di yuutu réew mi. Hmm. bëgg jot ci réew mi yëpp nekk opposant bu ñu waxee danga naan kii la mais il fi ñu toog ci pouvoir bi rek hmm. da ngay gis beneen façon. waaw le même cas lu ñuy dund ak le président Sall. ba muy campagne dëgg la. dañ ne kii c'est c'est c'est l'homme qui va qui va réaliser le rêve des Sénégalais. mais ba mu toogee gis nga li Sénégalais yi dund. dëgg la parfois aussi Sénégalais yi dañuy ñëw di comparer mais parfois aussi da ngay comparer loo xam ne c'est comparable. Ah gis nga un politicien. Mhm. c'est un discours et un parcours. un discours et un parcours. Mhm. maanaam li ngay wax ak fi nga jaar. ba méngalee ñi nga xamante ni ñoom ñooy wax fi ñu jaar ak fi usmaan Sonko jaar c'est diamétralement opposé ñooñu balaa ñuy yor nguur ba pare ñu am yu ñu leen daan tuumaal Ousmane Sonko déggoo ñu tuumaal ko lenn lu jëm ci aspect pécuniaire ne détourné na fii wala détourné na fee ba léegi mënuñu koo firnde. donc ñun mën nañu ah, pourtant ñu ngi koy doon tudd ci scandale 94 fan la mujjee ainsi de suite loo dégg léegi leeragul en ah, leer na loo dégg hmm. le dossier est classé sans suite loolu xam nga ko ndeku mu en tant que journaliste parce que xam nañ ni moom moo am dëgg te Barthélémy Dias toogoon na fi waat ci yàlla ne procès du am ñu ne ko lu tax mu ne Ousmane Sonko moom dëgg looloo waral ñu egsi à ce hmm. ndax amuñu dara loo xamante ni mën nañ ko koo. collé est que tamit sonk bi bi nga xamante ni dem na ba am euh, maanaam am ay ambition politique c'est hmm. vrai mi ngi woon impôt et domaine am ay ambition politique il fallait mu def dara. pour ñu ne euh, voilà pour marquer pour ñu ne kii sonk la wala kii nitu dëgg la mu commencé xam nga di di wax yoo xamante ne sax nee nañ amul woon droit wax ko euh, ay lëlbëj mauvaise gestion ainsi de suite est-ce que nekk woon sonk da doon def noonu rek di dénoncer ay mbir pour mën a fës pour ñu mën ko xam ainsi de suite comme ni mu ko réussir actuellement ba tax ñu raje ko ci ci fonction publique. waaw mais Ousmane Sonko waaw. yow est-ce que nekkul départ am la doon préparer. pour mën a génn euh, taxaw en tant que homme politique. waaw loolu. mën na nekk sa appréciation yow mais li ma la wax mooy. li nga xamante ni maanaam wax nañ ni Ousmane Sonko euh, euh, maanaam ci réserve d'obligation moom la enfreindre. Mhm. bi mu nee waaw bi mu nee député yi par exemple du ñu fay du ñu fay impôt. Mhm. moom dafa génne bulletin am firndeel ko ñu gis ni nga xamante ni moom lañ koy dagg te pourtant loolu mu wax ñu jàpp ni Euh, dafa maanaam euh, freine à l'obligation de réserve mm-hmm. loolu boo demee ci surtout ministère des finance képp ku dem da ko fay gis période boobu képp ku demoon cliquer yow dañoo koy wan nga gis ko mm-hmm. moo tax ñu jàpp nañu radiation am purement politique la loolu ñu bëri wax nañ ko mm-hmm. non dama ne est-ce que Sonko pour mu marquer territoire am pour mu mu xam ne ñu ne ah ku tudd Sonko mi ngi ñëw mi ngi dugg ci euh, langue politique bi pour mën a gagner du terrain comme ni mu ko defee actuellement mais, mais... il fallait peut mu def dara def dara moom mooy di wax maanaam Sonko wax rek la fi defagum jëfagu fi dara waaw mais parce que wax rek la fi defagum mais nekkagul ci nguur waaw dégg nga xaaral ma expliqué la ça veut pas dire que est-ce que li Sonko di wax yëpp tamit dëgg la ah sénégalais ñu ngi ibbi seen nopp waaw di ñu déglu mhm. mhm. saa yu saisiré justice ne lii am na mbir mi du met du du mujj fenn te gisoo kenn ku ko porter plainte kon mën nañ am njott mu rafet ni li muy wax dëgg la beneen bi mooy mm-hmm. politicien boo tegee parti politique aussi mm-hmm. da ngay toog di xoole mais foog nga wax sénégalais yi lan moo waral mm-hmm. nga bëgg a yor nguur gi da nga war a opposer une opposition radicale nag boo xamee ni nguur gi ñu ngi def ci loo ñu ngi def loo xamante ni jëmale réerum kanam ñu ngi dugal ci réew mi ay guuta yow bu fekkee da nga ni politicien nga nekk opposant da nga war a génn wax sa position donc munul génn mu wax position ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngànk nguur gi jéem a jàpp ni moom ni mu euh, position bi mu wax dafa de liggéeyam Sonko bu fekkoon ni dafa faillir à l'obligation de réserve hmm. ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk impôt ci boppam chef moom moo koy njëkk a te loolu amul day kumba mais est-ce que c'est la réalité est-ce que est-ce que est-ce que tamit euh, ki la di Ousmane Sonko euh, yow da nga jàpp ni euh, mën na changé Sénégal bien sûr jàpp nga ni Ousmane Sonko mën na changer Sénégal Ousmane Sonko ci euh, discours am tout le temps day wax ni dafa ñëw pour changer le système parce que wax nga ko sànq nga ne Sénégal euh, ba mu moomee boppam ba mhm. léegi ab raay la rek bopp bi rek la ñuy changer mhm. pratiquement c'est même système bi la ñuy demee dara mhm. changer wu fe mais Ousmane Sonko comment se fait-il mu ñëw bëgg a nekk un nouveau type de président euh, bëgg andi lu bees ndaw yi gëm ko surtout adhéré si moom parce mm. que comme ni ñu ko waxee ndaw yi mm. gis nañ ni euh, ay Senghor rek juuf ak Wade ak Macky ñoom ñëpp euh, ils ont à leur mission euh, yóbbuwuñ fenn yi léegi yow ku mel ni Sonko ñëw amagul benn doole politiquement même bu mm. fekkente ni ndaw yu bëri gëm nañ ko mu ne moom dafay xeex benn système euh, système bi muy xeex ñoom Ablaye Wade ñëpp fusillé na leen ah euh, comment wala Sonko naka la mën a jëlee réew mi te eh, ñi ko mën a soutenir pour mu jël réew mi ci système boobu muy xeex ci ñooñ la la bokk maanaam tey jii eh, élection bu amoon eh, tant que Sonko peut-être opposition bi ñëwul jàppale ko du mën a jël réew mi parce que gis nañ ni muy doxee waa léegi su euh, léegi ñooñu na war a jàppale Sonko pour mu jël réew mi ñoo ñëpp ci ci système bi la ñu bokk ah. te Sonko ci boppam moom c'est un pur produit de ce système bi nga xamante ni moom lay xeex non c'est-à-dire ça dépend la manière dont vous, a, vous avez appréhendé ce qu'est système. yow li nga jàppee système loolu du système ci nu ni ñu ko concevoir. ah moom li ñu wax leer ah, na ah déedéet da déglu ma expliquer la. waaw système bi maanaam du niñ ci paramétrage ni ñu tënkee suñu réew. Mhm. loolu moom mooy définir système bi. dama lay jox ci lu gàtt. Mhm. maanaam jéem a teg nit fi mu mérité. mettre la place. Euh, l'homme qu'il faut à la place qu'il mhm. maanaam tey jii bu ñu demee ba ay par exemple yenn post par exemple stratégique ñu war ko jox nit ñu bañ cee def ay parparloo. Mhm. yaa ngi dégg jéem a dindi ci réew mi corruption fi nga xamante ni fala la réew mi war a dugg ñu dugal ko fa te bañ ci xool xàjj ak seen yaa ngi dégg par exemple buñ ñëwee di jox nit ay marché mu bañ a am gré à gré ay appel d'offre ñu teg ko ci yoon. Mhm. loolu yëpp. paramètre paramétrage système bi moo waral yooyu yëpp du am. moo tax ma ne la waxul nit yi. waaw moo tax ma ne la loolu du système nit ñi par contre li ma la mën a wax mooy ñun Pastef. Mhm. tout le temps suñu bëggee di ànd ak nit day fekk li nga xamante ni euh, ñu ngi koy oote yow nga nekk ci. Mhm. par exemple euh, rapport épinglé wu la. comprendre nga Cour des comptes waxul ci yow lu ñaaw nangam ak kenn xamula ci détournement nangam ak nangam. Mhm. soo ñëwee ne da ngay ànd ak ñun mën nañ ànd ak ñoom ci ay base yu leer. Mhm. mais nit du ñëw. Mhm. ne daf lay jàppale nga ni noo kii ci système bi doon liggéeyee duñ ànd ak moom. parce que comme par exemple Assane euh, élection présidentielle yu 2019 yi euh, gis nga Sonko bi nga xamante ni dem na seet Abdoulaye Wade daf si perdre lu bari. parce non, que si yow si yow non politiquement il a beaucoup perdu. non loolu si yow bi mu demee seeti Abdoulaye Wade loolu si yow non c'est le constat général loolu sa conception la man concevoir ma ko noonu. parce que dañ ne ko comment se fait-il yow Sonko ngay xeex le système dem di seeti le père du système. pour le père il ouais. est le père du ah, système. Ah, mais a été président de la République du Sénégal. mais lan la wax quoi qu'on puisse dire président yi fi jaar ñëpp lu ñu mérito. quoi quoi qu'on puisse dire. mais attends Assane expliquer la quoi qu'on hmm. président de la République du Sénégal. Mhm. am na lu mu fi def mu jëriñ réew mi am na loo xamante ni def na ko peut-être que mu juum moo waral sénégalais yi gis ni waroon nañ ko fi mën a jëlee. Mhm. ku fi toog aussi boo fi defee yenn juum dañu la fiy jëlee. Mhm. Abdoulaye Wade c'est un homme politique bu ñëwee ci réew mi ne dafa soxla Ousmane Sonko Ousmane Sonko war na mën a dem uyu ko te du période élection yi du première fois boobu la Ousmane Sonko dem wuy Abdoulaye Wade loolu respect la ñi jàpp ni nag loolu daf ko wàññi lu bëri. man concevoir du noon laa ko concevoir. Mhm. ndax ku mu oowoon mën nga dem ba est-ce que Sonko maanaam discours am rafet na macha allah mhm. moo tax jeunes yi adhéré mais tamit si discours am est-ce que du poser ay act yoo xam ni daf koy contre contredire maanaam. est-ce que parfois tu di son Sonko est-ce que li muy wax gëm na ko est-ce que système bi mu ne moom lay xeex est-ce que gëm na loolu. Ah, est-ce que waxu ko nii rek. voilà pour pour pour miirloo la jeune génération. voilà ainsi de suite. mais nag loolu mais est-ce que c'est faisable. xaaral ma expliquer la mais loolu nag ñun mënaguñ koo xam. Mhm. ñun lu ñu am mooy njott bu rafet ci moom xam nga su nee naa la un politicien c'est un discours et un parcours. pertinence ak cohérence mhm. ñun li ñu gis boobu ba léegi ni muy doxee cohérence moo gi nga sénégalais yi dofuñu ndey kumba mhm. sénégalais dañoo jàng tey jii mënuñu gis la courbe d'adhésion de militants va toujours crescendo loolu ci depuis 2016 mën naa c'est depuis 2014 ba léegi législative fay dem plus fort reste fa demee mhm. ñu jugee foofu ñëw am si si ay six cent mille voix ci élection présidentielle yi passe diggante boobu par exemple man su ma jëlee exemple au niveau de Rufisque bi nga xam fa laa nekk 1700 voix la ñu amoon au niveau départemental ci législative yi ñu ñëw présidentielle multiplié ko par 30 30 186 voix donc la courbe va crescendo te ñan ñoo voté mais ay nit waaw moom laa lay wax dama ne la mm-hmm, mm-hmm. bu fekkoon ni li nga xamante ni moom lay wax gëmu ko sénégalais xam ni kii gëmu ko courbe bi du demee noonu njot bu rafet nag la ñuy am ci moom ndax parcours am ak discours bi muy tenir bu ñëwee ci réew mi bu amee naneen nu mu doxalee sénégalais am nañ fulla wan ko ginnaaw parce que loolu lañ fi am Sonko nag jamono ji dañ jàpp ni moom mooy yaakaaru sénégalais yi. Ah parce que moo si. Hmm. parce que moom moo fi toog di wax ni nga xamante ni réew mi doxewu ko di wax. li nga xamante ni mooy jëmale réew kanam. mooy principal opposant waaw principal opposant te lu mu leen wax rek ñu teg ñu teg ci seen bët. bu ñu demee ba ci maanaam li olof naan waxi Sonko jalu muus la boo fa waxee fekk fa dara. loolu moo waral Sénégalais léegi léegi tey jii Ousmane Sonko inci de suite gis nañu daal jeunes yi bëri adhéré nañ ci ci ci projet bi nga xamante ni euh, moom la amal pour le Sénégal tey jii ngeen yeewu. Euh, ak ni ngeen di gisee Ousmane Sonko ak fi ñu ko teg bu weesoo uh, discours bi muy tenir ñu naw ko ci uh, tamit ñu gis ni ku fonk diine la uh, am ay valeurs yu muy incarné ñu yeewu rek un bonjour rek ñuy tudd ay Ousmane Sonko euh, ci affaire de de de mœurs benn xale bu jigéen naan Ousmane Sonko daf ko violé daf ko menacé de mort yow en tant que euh, jeune koo xamante ni yaa ngi ci biir Pastef ban jàngal nga am ci mbir moom waaw danga may may sax ma mhm. xaw a revenir tuuti ci question bi nga wax mhm. maanaam discours bi ak parcours mhm. parcours parce que bi mu sosoo ba léegi lépp loo xamante ni day jëmale réew kanam ci acte citoyen parce que daf ci nekk mhm. tout récemment avant ñuy egsi fii mhm. gis ngeen suñu vacances agricoles patriotiques yi ci mbay mi waaw patriotes yi dem ci corps et âme gis ngeen fii don de sang yi dem nañ ba CNTS dafa jekk saay ne nañu arrêté ndax amatuñ fu ñu denc deret loolu mosoo ko fi gis loolu moom rafet na surtout ci mbay mi ñoom seen un homme bu wax loolu sénégalais yëpp jug def loolu mu ne bay leen ñëpp def bay génne seen xaalis di ci def te kenn joxu leen dara mu jël otoom di wër tool yi di motiver nit ñi wan sénégalais yi ñun de bu ñu yoree réew mi ci lii lañ bëgg a wéy ndax agriculture moo yorum réew loolu c'est des yoo xamante ni kuy sénégalais war nga ko saluer te d'ailleurs sénégalais yëpp saluer saluer nañ loolu mm-hmm. loolu nag nga xam ni pouvoir bi moom da ko waroon def te am yaakaar di ko def mm-hmm. peut-être que mu metti leen ñu gis ni ay points mu ngi yokk ñu ne ah kii de jaar nañ ko fu ne mënuñu koo am xaaral ñu jéem par exemple ut loo xamante ni mën nañ ko ko tegal ay ndëgg sërëx léegi moo tax nga ni ci contexte bii ñu ne pour pourquoi ñu jekk saa rek tudd Ousmane Sonko ci ay mës bett waaw dafa bett sénégalais yëpp yow bett na la non oui daf ñuy bett xam lu tax parce que ñun dañ jàpp ni loolu mhm. mënul daal Ousmane Sonko mhm. jusqu'à preuve du contraire ñun patriotes yi jàpp nañ ni viol amul foofu te kenn du la firndeel ni viol am na fa moo tax nous sommes érigés en bouclier taxaw xam ni ñii lii moo leen dese c'est bassesse unique la te ñun loolu duñ ko seetaan te mbir yi mu ngi commencé di leer. Mhm. ci naka lu leer. ah ñun ñëpp gis nañu ça défraie la chronique journalistes yi ñu ngi def ay investigation mhm. nit ñi di introduire ñuy wax. Mhm. les principales concernés ñu ngi leen déglu di leen déglu. am na ay PV yu fuité. yow dégg nga ko man dégg naa ko keneen ak keneen dégg na ko. Mhm. comprendre Ousmane Sonko def na déclaration sénégalais yëpp déglu ko. Mhm. ndax ñëpp loolu lañ doon xaar mu def déclaration nit ñi déglu ko xam ni kii ay waxi nit la wax. yaa ngi dégg pour alerte l'opinion nationale wax ni ñoom bu fekkee ni seen complot bi dañ ci bëgg a ngir jël Ousmane Sonko sànk ko ñun les patriotes du Sénégal les sympathisants de Ousmane Sonko ñi nga xamante ni réew mi développé jaral na leen lu ne. ñi nga xamante ni doyal nañ ci Macky Sall du ñu mës a seetaan loolu te wane nañ ko lënd bii nii passé. mais tamit Assane foog ñu taxaw tuuti ngeen jël seen euh, xolu uh, bi teg fële ngeen raisonnable un peu. bu fekkee Ousmane Sonko dafa jékki-jékki parce que Ousmane Sonko tamit c'est un sénégalais comme tous les sénégalais. effectivement ki ko tuumaal c'est une sénégalaise. ñoom ñëpp dañu am àq ak yelleef ci réew mi. Mhm. man man parfois sax ay casquette président député. man mhm. yooyu duma ko sóoraal ay DG ministre. doomu aadama Sonko nit la. Mhm. Euh, léegi dañ ko accuser mhm. viole mhm. meurtre fii saa su ne ñu yeewu euh, manaan naan meurtre sax euh, menace de mort. je rectifie fii saa yi ñu yeewoo ñu ne ab sénégalais. jiiñ nañ ko fi viole ainsi de suite ñu dem régler ko ci tribunaux yi sans problème on en parle tous les jours Ousmane Sonko tamit nit la comme ñëpp c'est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais am na ku ko tuumaal mais est-ce que moom warul woon jël responsabilité am au lieu que muy attaquer directement la le gouvernement. Mhm. wala muy jël affaire bi lal ko carrément ci politique. Mhm. mu jël processus pour seetal boppam. maanaam yoon oo na ko. comme mhm. ni mu ko waxee mais nañ non yoon oo na ko. Uh-huh. comme ni mu ko waxee. député la c'est vrai. nañ dindi sama immunité parlementaire. waaw ma dem wuyu ji. ñu lijjanti mbir mi. mu teg ay preuve am. jox ay explication am. ñu juger tranché. mais comment se fait-il le moom Ousmane Sonko ci boppam sax leeralam dafa des dafa expliquer ba ci biir dafa expliquer ba ci biir rek mu jël affaire bi rek def ko quelque chose de politique maanaam totalement politique est-ce que moom tamit amul droit leeral sax yeneen sénégalais yi nga xam duñ euh, non est-ce que amul warul leeral mhm. mbir mi carrément parce que leeralam dafa des. ci conférence de bi nga xam ne amal na ko. moo tax rek mu bëgg a ñëw rek teg ne c'est politique c'est politique c'est politique. non da ngay déglu ñu. waaw da nga posé nga ma question déglu ma ma expliqué la. waaw au début yow yaa Ousmane Sonko nit la comme ñëpp. waaw nangul nañ ko citoyen la. comme ñëpp moo tax loolu moo tax mu teg tànkam ci salon de massage boobu. Mhm. comprendre nga parce que ñëpp n'est-ce pas. après dinaa si ñëw ak say question benn bi mooy Ousmane ko dafa def déclaration. Mhm. claire net et précis. expliquer sénégalais yi lan moo waral mu teg tànkam ci salon de massage boobu yaa ngi dégg. Mhm. wax sénégalais yi ba ñëpp comprendre maintenant Ousmane Sonko c'est un homme politique ki aspire à diriger le pays. to gis nga dañu ne. bu mhm. ndobin reyee sa maam boo gisee lu ñuul daw. boo ñëwee fële fekk ay xar ñu rendi leen nga gis leen ñu leen di rendi foo tourné di nga mbéy yaa ngi dégg. Mhm. bu ñëwee gis ni boobu ba léegi Khalifa Sall fexeel nañ ko denc ko ci kaso bi Karim Wade denc nañ ko ci kaso bi te Ousmane Sonko mooy le seul opposant radical di leen oo ci ay di d'idées ay lan mooy doxal réew mi rapport yi nangam ak nangam mu commenté ne leen nii du nii ne du naa na justice def liggéeyam justice deful liggéeyam Mamour Diallo ñu accusé 94 milliards ñu tëb fii la xari jaar Sonko nii ak nii ba léegi ñun ñoo saisir def suñuy plainte ñu classé dossier bi sans suite mu ñëw wax lan moo ko indi ci salon boobu wax sénégalais yi mensonge crapu loolu loolu gars yi di wax c'est des mensonges crapuleux viol mësu fa am violewul xale bu jigéen bi te li ñuy wax yëpp dara amu ci pare daan ne nag militants yi parce que nous sommes parti politique bien structuré mm-hmm. am na yoo xamante ni duñ ko nangu ay yeneen dëgg sërëx yu ñu daan def ñeneen ñi ñun duñu ko nangu mm-hmm. voilà mu ne leen nag maa ngi wax sénégalais yi que l'heure n'est ñoo ko déggandoo jaru sax ma si jaaraat l'heure n'est pas au discours di wax ak yooyu il faut rester ferme et mobiliser. mais est-ce amul problème de mars au lieu que Ousmane Sonko jël ay responsabilités mais réglé ko ni mu comme ni mu ko war a euh, réglé mais muy utiliser ay militants euh, di dox di dox si xelu sénégalais naan leen c'est c'est politique waaw yi jot kenn mënul dox seen xel di dox si xel maa ngi waaw mhm. Ousmane avant muy def euh, déclaration mhm. sénégalais ku ci ne da doon wax réseaux sociaux ñii di partager fii ñii di fii ñëpp toog rest zen di xaar mu wax bi mu defee déclaration am na ñoo xamante ni mënuñu sax continuer liñ doon lekk tellement seen yaram dafa summeeku ñu xam ni kii li muy wax waxi nit la. non non li tax seen yaram summeeku mooy le <laughs> fait que Ousmane dugg ci lieu boobu. si la ñu bëri ñu ko doon soutenir. am déception sànq nee nga Ousmane Sonko nit la comme ñëpp. yaa ko wax sa début. mais tamit waaw xaaral ma euh, eggal rek. baal ma ñëw. Mhm. Ousmane Sonko expliqué ne lan moo waral mu teg tànkam ci salon boobu parce que salon bi am na égra euh, am na agrément autant pour moi te dañ ko mettre en rapport ak salon boobu yaa ngi dégg. Hmm. te du benn yoon la fa dem du ñaar yoon pour wax ni moom ragalul lu muy def. gis mais mais lu ko teree dem si kinésithérapeute. mais ci kinésithérapeute thérapeutique euh, fa fa fa la njëkk di dem. Mhm. mais pouvoir d'achat am may ko woon muy continuer di def loolu. mu ne deux cent mille francs CFA. mais bien sûr kuy maye sa salaire député kay war nga am xaalis bu bu bu booy dundee wala bu looy dundalee sa njaboot de tey dañ la laaj question Ousmane Sonko naka lay dundalee njabootam. waaw loolu c'est autre chose. ah. n'est-ce pas. c'est c'est une question pertinente. waaw c'est une question pertinente moom sax daf sa euh, parti politique li koy doxal yëpp euh, danga naan militant yi. cotiser leen Ousmane Sonko da am nga jël sa salaire député nga ne danga koy maye. mais Ousmane Sonko am na cabinet waaw. ñu mhm. ko daxee am na cabinet am na cabinet di liggéey mhm, waaw. Mhm. loolu toog na wax mais kuy maye sa salaire député toog na wax ko nit ñi dégg ko. munoo fay sa sa sa massage deux cent mille francs CFA ci député. bien sûr avec tous les privilèges waaw mën na ne parce que bu fekkee ni yow par exemple saa yoo demee masse deux cent mille nit ki li muy génne ak la muy sentir moom moo ko xam. yaa ngi dégg. Mm. léegi nag euh, ñu recommandé ko foofu mu dem fa bi mu demee def leen laaj ndax am ngeen agrément ñu génneel ko agrément bi loola waral mu fay dem dem na fa benn yoon ñaari yoon lépp te dara xewul te dara xewul Ousmane Sonko day génn dem saal musculation mu ngi mel ni bu demoon salle. Mm-hmm. ñu ne warul dem salle. Mm-hmm. mu demoon plage ñu ne warul dem plage. Mm-hmm. mais nit la comme ñëpp tuuma moom bu ñu la koy teg fu ñu la ko tegee bu la waree dal daf lay dal. xam na lu tax ñu lay poser question bi euh, Ousmane Sonko bi muy dem ci salon boobu ñam fay fekk maak ngi ñoom a yam duñ ay kinésithérapeute jànguñ massage amuñ ci technique amuñ ci dara. non dama la bëgg ay kii lañ rek ay soins dama la bëgg wax ni. léegi la muy dem ut ci salon de massage boobu mu am ñaari soxna. xanaa moom ay soxnaam munuñ commencé au lieu que muy fréquenter ay salon de de beauté. soxna si waaw xaar ma expliquer la. Mm-hmm. waxu professionnel la wax. n'est-ce pas. exactement salon bi dafa am agrément état moo leen jox agrément. Mm-hmm. mais salon de beauté la. maanaam dañu am massage rek si biir. xaaral ma expliqué la rek dañ mm-hmm. leen jox agrément wan leen ni mën ngeen a def lii. ñun on a mais duñ ay professionnels ci mais ay professionnels ci wàllu massage. ça il faut le souligner. mais am nañ agrément. agrément wu nañ def loolu. agrément ubbi salon de beauté. mais amuñ amuñ luy wane ne dañu qualifier pour di maase ñu feebar comme Ousmane sonk parce que Ousmane Sonko feebar bu mu expliqué c'est sérieux c'est pas n'importe qui sax moo ko war a maase dafa war a dem ci ay professionnel dama la ci ay moom lu mu expliquer moo ko dal ce n'est pas euh, sérieux bu fekkee nag dem na ba mënul fay deux cent mille francs wala xaw ma nu mu ko waxee entre guillemets yaakaar naa ne type de massage ba mu doon wuti ci salon boobu mën na ko am këram. non këram si lu raisonnable si ay soxnaam mais lan moo tax waaw. moom ñu recommandé ko foofu ki ko recommandé c'est un professionnel moo dem ba xam ni moom lii nii mënut ay koo mënut koo fay mu recommandé ko foofu mu dem laaj agrément ñu génneel ko ko. non yow Assane Assane duñ d'accord dama ne la. ñooñu dañu am agrément pour ubbi salon de beauté. mais professionnel buy maase lu tax ñu naan massage professionnel amul foofu ko koy def. no en tout ki koy ki ñu koy tuumaal aji aji ma Sarr aji Sarr bu ban fan fan la jàngee massage. no xaar ma expliqué la. voilà soo ñëwee ci lii. waaw mu am agrément mu ngi mel ni fii nga ñëw fi. réew mi FM. Mhm. dafa am euh, euh, agrément pour ubbi nekk rajo. Mhm. suñ ñëwee yow lañ fi fekk. tey jii yow mën nga jekki saay nga dem keneen ñëw toog di ma interview mais dañ jàpp ni yéen seen kii bi am na agrément moo waral ñu fi teg suñu tànk. foofu bu amuloon agrément Ousmane Sonko du fa dem loolu laa la bëgg expliquer. li nga wax yëpp d'accord naa ko mais amul professionnel. de massage ay kinésithérapeute yu nekk foofu pour mën a masser Ousmane Sonko te foofu tamit le coût n'est pas très très kii comme ni ko xalaate waaw mais le si le coût n'est pas très euh, conséquent et moom ah. lool loolu la attan mu permetre ko mu fay masser plus de six mois yàgg na mhm. pouvoir d'achat moo ko permettre muy ñëw foofu mais dafay continuer parce que loolu la ce qu'il te tey loolu moo ko yóbbee lii est-ce que yéen am ngeen courage yéen ñi koy soutenir. Mhm. dans tous les combats courage ne ko carrément yow suñu leader waroo fréquenter parce que d'une part Sonko sénégalais comme yeneen sénégalais yëpp d'autre part. Sonko dafa am casquettu député d'autre part euh, Sonko dafa am profilu principal opposant mais ak parce que actuellement bu ñu nee kan moo mën a euh, daane le président ku ñu njëkk xalaat mooy Sonko moom la ñuy gën a sóoraale donc casquette bu mu am c'est un casquette spéciale ku mel noonu ak fu nga toll nga jël troisième ci dernière élection présidentielle est-ce que war nga mën a fréquenter ces types de salon te salon yooyu euh, Assane si dëkk bi nga nekk xam nga étiquette bi nga xamante ni moom la ñuy collé maanaam pour pour pour deram rek xool pour deram ñu mu fay dugg rek ñuy gis Ousmane Sonko di fa dugg rek mën na ko yàqal dara moo ko àndi lii est-ce que yéen am ngeen courage yu taxaw ne ko vraiment waroo woon dugg ci salon de beauté bi. no dama la bëgg a wax. waaw Ousmane Sonko bi mu defee déclaration li mu wax sénégalais ñëpp dégg nañ ko. ñëpp dégg nañ ko waaw mu ngi mel ni nga ni Ousmane Sonko warul dugg ci salle musculation bi mu ngi mel ni nga ni Ousmane Sonko warul dugg ci restaurant bi wala Ousmane Sonko warul dugg nangam wala warul mun dugg fële Ousmane Sonko sénégalais la comme ñëpp. fépp lay dugg. dama la bëgg wax ni sénégalais la comme ñëpp. Mhm. citoyen la dafa am vieux mhm. n'est-ce man foofu laa mën a yem. dafa mel ni tey nga ne euh, parce que am na loo xam ni c'est moral maanaam booy ut dara si réew am na lu bari da nga koy sóoraale. am na benn euh, fooy toll. day fa nga daan dugg doo doo fa mën a dugg. loolu dëgg Ousmane Sonko am na lieu yu mu daan fréquenter même su fekkee bëgg na fa continuer dem sax. Hmm. casquette am mayetu ko ak li mu bëgg ci réew mi non. à un moment donné. nekkul ni Ousmane Sonko nekkatul. fu ko neex la war a dugg. comprendre naa li nga non est-ce que xam nga li may waxee la. Ousmane Sonko. waaw am na lieu yoo xamante ni moom personne du fa dugg. am na fu muy dugg ak fu mu dul dugg yow mi am nga loolu laa la waaw moom la dugg nag man mii ndey kumba man sax ma xam ne ma kànd dama la bëgg am na lieu xam ne nga yow yaa jàpp ni warul dugg salon massage mais moom jàppul type de salon de massage yenn yi moom expliqué na lan moo waral mu dugg ci salon boobu ak lan moo waral mu dem fa parce que demu fa woon mhm. fa mu newoon mun fayati loolu ñoo ñoo ko recommandé foofu comprendre nga. Mhm. mais am na ay comme dul salon de massage ak ay yeneen lieux yoo xamante ni Ousmane Sonko loolu moom. ñëpp mën nañ ko comprendre du fu ne lay dugg yow mii sax du fu ne ngay dugg. waaw comprendre nga. Oh, fooy dugg dafa am lu ko waral. foo mu dugg nag la ko waral moom wax na ko te ñun dégg nañ loolu. yéen loolu ngeen ngeen ngeen jàpp. loolu lañ jàpp te am na ñu ne sax si hôpitaux yi am na ay kinésithérapeute ay séances mën nga fay 5000 10000 donc Ousmane Sonko li muy wax foofu ça ne tient pas ah ñoom la. waaw ñun lim ñu wax ñun dégg nañ ko. kinésithérapeute yi c'est pas trop cher comme moom ni mu ko waxee. ah ñun lim ñu wax. yéen daal lu leen Sonko wax rek loolu ngeen jàpp. bu ngeen gëstu ba xam li mu wax. non non yenu na maanaa wala yenuwul maanaa. waxee noonu nous ne sommes pas des fanatiques ba lu mu ñu daw ñu ko. Mhm. Ousmane Sonko xamante ni ñoo ñëw di mais am na ñoo xamante ni topp nañ ko ay deux trois ans door door door ci moom nit toog na radical naan no seen leader bi nii ak nii ak mais day def ba à un moment donné mu ñëw adhéré. Mhm. parce que day xam ni kii li ñuy wax temps boo toogee ak moom di nga xam ne li ñuy wax ci moom amul. comprendre nga bu fekkee ni koo xamante ni dafa wax dëgg duut baaraam fi dëgg bi ne nga ne il arogan dafa fekk yow xamoo euh, xamoo xamoo lan mooy dëgg. Mhm. mais tey jii li ma la mën a mooy quoi que les sénégalais disent la courbe va crescendo tuuma yee nii nii rek waxuma la dara mais adhésion militant yi vente carte de membre yi sa explose bu guddi bi Ousmane Sonko di def déclaration. Mhm. wallahi azim ak café bi ma naan bi may ñëw sama téléphone mënutuma répondre carte de membre laa bëgg carte de membre laa bëgg te du man du kenn ak keneen ak keneen moo lay wan nit ñi dofuñu. waaye su ngeen si jógee di ngeen defaraat seen entourage yu leader mu xam fu muy dugg ak fu mu dul dugg. waaw dama la bëgg a wax nii. fu muy teg tànkam <laughs> fu mu dul teg tànkam dama la bëgg a wax nii. waaw <laughs> ku ndobin rey sa maam. Ah. boo gisee lu ñuul daw. 2024 mhm. ñëw na ñëwagul. boobu ba léegi ñu ngi nekk ci benn conscience comprendre nga chaque jour nguur gi ñu ngi si suñuy tànk yaa ngi dégg kon ñu lépp lu ñuy def dañuy wëy di ko xool yaa ngi may dégg. Mhm. tuuma nag suy ñëw ak complot xam nga liñ naan un crime n'est jamais parfait pexe moom pexe la rek fu ne lañ koy lalee waaye la ngay lal na fekk ba na set wala mu nekk dëgg te sénégalais yi avant même dossier bi di avancer ñëpp xam nañ ni Ousmane Sonko dañ ko doon tuumaal loolu lañ ci wax. gëm ngeen ni lii Sonko dina ci génn set ci wecc. ah li ma la mën a wax mooy. Mhm. bu fekkee ni am nañ justice bu tax ñu naan justice jël wàllu politique teg ko fële. déglu prof procès yi nga xamante ni euh, procès verbal yi nga xamante ni jóg na. Mhm. député yi par exemple ñoom waroon nañu mën a jël dossier d'enquête bi étudier ko avant ñuy jëm ci seen commission ad boobu mais defuñu ko article bi may na leen loolu lettre saisine bi rek lañ jël bëgg a convoquer li ñuy convoquer te article bi may na leen ñu jël dossier bi xool charge yi nga xamante ni teg nañ ko. Ousmane Sonko est-ce jar na si may na leen ko ba est que jar na ko démb gis nga fi ay journaliste de la place say collègues. li ñu wax ci dossier bi ci certificat médical bi ci yoogi yooyu cité ay nit ba ki jël si xale bi. cité ci cité ci ay lien xaar ma expliqué la rek baa ma eggal cité ci ay lien de parenté xam nga yooyu pour opinion bi la nit ñi ñëpp di di di di di xool te li ma la bëgg a waxaat mooy ñoom am nañ prérogative jël kii boobu ah, dossier d'enquête boobu étudier ko xool ndax fii jar nañuy lever immunité am wala jar nañu koy lever mais ils n'ont pas fait cela ils ont préféré aller dans autre chose donc ñoom mën nañu jàpp ni mhm. seen responsabilité sera engagé te li ma la a wax lenn mooy Ndeye Comba ñu duñu accepter loolu foog mu leer toujours maa ngi koy maanaam du ngeen accepter ñu éliminer Ousmane Sonko question ay discours de va t wala nangam ak nangam mhm. keroog li xew la huit patriotes yëpp dañoo génn dem buntu këram mhm. parce que dañ jàppoon dañuy ñëw pour jël si ko ñu taxaw fa semuñu la bordel defuñu dara man fa la ma fekk policiers yi ne dañuy constater constater demaat. Mm-hmm. ñu jekki saa ñu dóor ñu lacrymogène nga xam ñaari koñ lañ taxaw seq ñu dóor ñu ay lacrymogène ñu ñu jàmmaloo ak ñoom ñu tas suul bi ñëw ba kër Ousmane Sonko tiim ñu man maa nga foo woon. Mm-hmm. di ñu dóori bal bal ay lacrymogène lép ci biir kër gi. Mm-hmm. jigéen ñi ñëpp ne fa kenn xamul fooy jaar mais loolu du yoon. mais ni tamit euh, Ousmane Sonko seen njiit moo taxaw ci conférence de presse am ni mu ko waxee mooy euh, député la du ma wuyu ji euh, nañu lever sama immunité parlementaire waa déglu ma nañu lever sama immunité parlementaire ñoom suñ ko bëggee mën nañ ko def taf taf parce que ñoom ñoo am majorité ma dem wuyu ji suñ ko lever tay ci suba neuf heures dix heures ma dem wuyu ji déjà mais déjà loolu c'est quelque chose pour Sonko mais danga may wax lan la fa police di def pour Sonko mën a setal boppam. léegi lan la fa police di def waaw taxawal premièrement pour Sonko mën a setal boppam kon léegi naka ngeen di condamné député yooyu te député yi la ñuy def Sonko moo ne nañ lever immunité pour moom mu mën a jàkkaarloog yoon. setal deram député yi. waaw premier point procédure bi. am na lu ñu ci commencé bàyyi. non mu war leen loolu laa la wax Ndeye Goumba li may wax mm-hmm. leer na. Mm-hmm. dama ni bu fekkee ni yow yor nga xam nga règlement intérieur assemblée nationale xam article yi li ñu wax. Mm-hmm. xam nga am na loo xamante ni bàyyi nañ ko di wéy di dem. d'accord loolu laa la wax mais levée bi ngeen di wax ay ñu ngi livrer Sonko loolu Sonko moo ko bëgg pour seetal deram. waaw dama ni moo ko demandé ci conférence de presse bi. deuxièmement seen leader di oote insurrection. insurrection ma mu comme li ma la wax sànq. maanaam nit ki euh, am nga problème fii chaque jour. benn sénégalais am problème ak justice dem ñu lijjanti ko Sonko sénégalais comme sénégalais yëpp. léegi yow wax ma wax ma insurrection bi nan la ko. kenn waxul def na wala deful dañ ko mm. tuumaal c'est mm. un accusé mm. léegi euh, nañ lever immunité parlementaire mu dem uyu ji mais lan moo mooy insurrection bi ñuy wax muy instrument appel à wax ma nan la defee appel à l'insurrection mais parce que nee na jóg leen kii leen jóg leen yëngatu parce que sama kaw lañ jëm se l'état c'est Macky Sall ah, et puis dafa citer directement Macky Sall si mel ni Macky Sall moo ko boole xale bu jigéen wala Macky Sall moo ko yóbbu ci salon de massage bi ainsi de suite xam nga woote soulèvement militant yi nañ jog yëngatu yéen tamit ngeen def même chose dañu jóg yëngatu ah, mais li mu wax li mu wax ci conférence de presse bi il kon li ngeen doon def buntu këram la xaaral ma expliquer léegi il faut qu'on conséquent waaw nest ñun xam nañ Sénégal ni muy doxee waaw nest mm-hmm. dañu ne dafa lang lamboo mbelaanu kiiraay député la kenn mm-hmm. mënu koo convoqué noonu parce que section de ñoom ñoo ko convoqué te xam na ñu député kenn du ko convoqué lu tax ñu ñëw rek convoqué ko noonu te dañu war a lever mbelaanu kiiraayam mhm. mu wax ni nag du ma wuy ji parce que dafa am loo xamante ne dañ ma ko solal ñëpp d'accord ñëpp d'accord mhm. comprendre nga léegi nag c'est une personnalité politique loolu dañ koy nangu ñu gis li fi joxe xaw mu ne nag militant yi fi mu nekk nii l'heure n'est pas d'écrire l'heure n'est pas newul ci ay réseaux sociaux yi rester mobilisé waaw est-ce que rester mobilisé mooy appel à la résurrection bu fekkee appel à la résurrection bi ngay wax Macky Sall moom moo ko njëkk def en 2011 yéen ñëpp gis ngeen ko demal ci page am. non instant bi xaaral dama lay wax rek non dama lay wax du. dama lay si 2021 non dama lay expliqué xaaral la bëgg defuñu ko. Mhm. te bu dee appel à euh, résurrection Macky am na phrase bu mu waxoon 2011 ne le combat l'affrontement sera inévitable le combat se fera dans la rue ba pare daal ne c'est à l'armée d'être à côté du peuple. loolu wax jooju lan moo ko gën a rëy. mais est-ce que contexte yi benn la. contexte yi lan la Macky Sall bu 2011 lan la woon. yow kay làkk la. ah yow ah yow journaliste. yow yaa non non yow yaa cité Macky Sall 2011. wax la mu wax lan la woon yow kay waxal ci ban. contexte la ko waxee man kay du ma ko wax. boobu opposant la woon. wax ni ma ne ci ban contexte la ko waxee. parce que ñu ngi doon jëm ci ay ci ci ci ay ci ay élection waaw Abdoulaye Wade mais fii jëmuñ ci élection moo tax ma laaj la ci ban contexte Euh, 2011. ak contexte bi ce n'est pas la même chose. xaaral ma wax la appel à résurrection moom. Hmm. yow boo génnoon fii léegi ne ñëw leen ñu taal nañ leen nangam nangam. Euh, nañ leen sànni ji xeer nañ leen def nangam ak nangam appel à résurrection la amul contexte fii amul contexte faa li ma la bëgg a wax. mooy mais moom la Sonko def déedéet xaaral ma expliqué la. te ngeen te ngeen ak de ak la mu ko dafa woote loolu. xaaral ma expliqué suba sa ngeen xëy taxaw buntu këram. taal dëkk bi yëpp ta non lan moo waral ñu taal dëkk bi. taal dëkk bi di taal ay oto jàmbur di semer la terreur. lan moo waral loolu c'est-à-dire da ngay ñëw ci feey lan moo waral loolu journaliste yëpp ñu nga fa woon je ne veux pas citer des des des organes de presse. Mm-hmm. ñu bëri ña nga fa woon. Mm-hmm. ñun ña nga fa takk suñu masque rester mobilisé parce que jàppoon nañ ni dañuy ñëw pour jéem a jël Ousmane Sonko. Mhm. te boobu teguñu ko ci yoon. Mhm. bu fekkee dañ ñëw def loolu teguñu ko ci yoon a ah, ñun lu ñu war dinañ ko def mais ñu taxaw policiers yi ñëw constaté demaat ñu dem ba ay coup de dix heures onze heures lacrymogène ñëw mais aussi fi ñun Sénégal lañ nekk koo fi dóor lacrymogène mu riposté ñu dóor ñu ay lacrymogène ñu loo ak ñoom. bi fil bi demee ñëpp dem après. maanaam fitna bi daal takku der yee ko indi mais du yéen. ñoom ñoo ko indi kay boo laajee presse bi ñu ne la fitna yi takku der yi ñoo ko indi parce que ñun fi ñu taxaw demuñu ñu fekk ji leen dañu ñëw encercler ñu ñii ne fële ñii ne fële ñu ñu nekk fi ñu nekk taxaw fa ne suñu jàmm. yéen lan ngeen doon wuti kër Ousmane ko déglu ma dañu ne dañ ko convoqué. Mhm. te levé guñu immunité ñu dem ñu taxaw fa ñu reste mobilisé parce que dañu gis ne moo tax ñu dem ñu taxaw fa. maanaam tey bu ñu bëggoon police nee na moom ñëwul pour jël si Ousmane Sonko. loolu leeruñu woon. ñoom loolu lañ wax. léegi ñoom suñu ñëwoon pour jël Ousmane Sonko dem yéen da ngeen di. riposté ah, bu boobaa waaw ah, bien sûr. loolu moom nekkoo leen si yoon. newuñ si ñan yoon kon léegi. mais yéen tamit nekkoo leen si yoon wax ma ndax ñoom ñoo ne parce que yéen waroo leen <laughs> defal seen bopp. di di teg seen i ñoom aussi ils n'ont pas le droit de venir si benn droit. Ah, ñoom aussi amuñu si benn droit. yoon mayu leen loolu. te ñoom mais ñoom nee nañ jël si wuñ Sonko loolu léegi lu tax ñu dóor ñu lacrymogène. lu ñoom la tax ñu taxaw fa ñoo ko xam. voilà mu ngi noonu. waaw waaw mais nous jéemuñu enfreindre dara dañ ñu fekk dóor ñu ay lacrymogène ñun ñoo fa newoon ñëpp muy presse beeg ñëpp ñoom ñoo njëkk a jéggi yoon. mais mais en tant que patriote. Mm. parce que. Euh, seen tur rafet na macha allah patriote ku bëgg sa réew fonk sa réew. Mhm. Euh, bëgg say symbolu réew fonk ay institution tout ça c'est dans le patriotisme. Mhm. comment se fait ay patriote di lakk ay oto jàmbur euh, di saccager ay bus di def du n'importe quoi ci Ousmane Sonko dugg na ci salon de massage bi ba violé na violé na violé ainsi de suite comment se fait ay patriote di yàq ay yëfi jàmbur. boobu tamit ça pose problème xaaral waaw nous nous ne réclamons pas le monopole du patriotisme mais nous assumons notre patriotisme. Mm -hmm. on vous appelle des profondément waaw nga. Mhm. waa affaire patriote da ngay xool li xew biñ doon commencé door ba heure bii. Mhm. da ngay xool li xew biñ nekkee ci Pastef ba léegi. Mhm. actes citoyens yi ñuy def ay dons de sang ay vacances agricoles di jàppale nit ñi mbënd bi lu ñu am ñu yóbbu loolu yëpp c'est des actes n'est-ce pas. Hmm. loolu foog ñu ciy wax. lan moo waral bi ñu ñëwee ba fii nee naa la ñun tëbuñu sànni ay xeer. def naka sudul noonu. dañ ñu kobos. ak policiers yi mais lu tax ngeen di toj ay bus lu tax ngeen di lakk ay oto jàmbur. dëgg lu ma expliqué la. Mhm. mais bu buñ nee lakk oto jàmbur jëmul si ñun kese. policiers yi bu ñu dóor ñoom lacrymogène li ñuy li ñuy dóor dafay def ay conséquences comme ñun xeer yi ñuy sànni def ay conséquences mais tim nañ kër Ousmane Sonko dóor fa bal ci fenêtre dóor lacrymogène def ay dégâts loolu lépp bu ngeen fa demul woon loolu du am ñoom buñ tiréwul woon loolu du am mais yéen su ngeen demul woon loolu du am ñoom buñ tiréwul woon loolu du am au moment où ñu taxaw foofu mhm. boo demee consulat bu Paris mhm. sénégalais yi ña nga fa di naqarul li nga xamante ni moo xew te ñan ñoo gën ñooñu xam nañ état de droit mhm. ña nga fa taxaw gën ñu ëpp mobilisation policiers dañ leen encadré bal tàkkul lacrymogène jugul dara jugul lan moo tax mu am fii nii fii Sénégal. gis nga ni Sonko mën na daaneel président Sall 2024. bien sûr. ci naka waaw loolu ñun am nañ ci intime conviction. daaneel ko da gagné ko premier tour. premier tour voilà. parce que ñun suñu liggéey. Mhm. boobu ba léegi fi ñu teg suñu tànk teggiwuñu ko fa. nous sommes restés constants et cohérents ci liggéey bi parce que dañoo am vision. Mhm. dégguma dama la wax ni ñun. Mhm. Ousmane Sonko bi mu ñëwee nit ñi dañ ña wax rek lay def mu tëju bind livre chronique pour une spoliation. wax gaz Sénégal ni ñu koy caxat-caxatee ak pétrole bi ñu demee ba si biir opinion bi jox na ko raison parce que gis nañ ci ay ay ay ay comment dirais-je am ak ay commentaires ak yooyu mhm. ñu ne day dénoncer rek mu bind benn livre vision tuddee ko solution o ay journalistes yu bëri ñu ñëw toog de tout obédience posé ko mu décortiquer ko di livre bi wax vision bi nga xamante ni fa la Sénégal war a dem ci biir vision boobu mu euh, mu mu extraire ci suñu programme jot na teg mm-hmm. ko ci des bases claires. Mm-hmm. boobu ba léegi la courbe va crescendo nit ñi di ko topp comprendre nga ñun suñu vision mooy jël seen jël réew mi en deux mille vingt quatre jël Sénégal teg ko ci sur les rails du développement durable parce que nañ ko wax sànq thème bi je pense que ay mm-hmm. politique de l'emploi crise ak yooyu je pense que ñoom ñàkkum xëyum ndaw yi surtout pour man seeni priorité devrait être ailleurs quoi il faut qu'on le dise dans ce contexte. mais mais Sonko moom lan la nar a ah parce que problème mu Sénégal bu ñu mën a citer bu weesoo euh, santé ak éducation euh, dañuy wax emploi maanaam ndaw yi amuñ xëy. Mhm. Sonko lan la proposer foofu carrément pour utal ndaw yi xëy une fois au pouvoir. nday nday Kumba. sa question bi am na solo. Mhm. maanaam gis nga boo tëbee ne ni da ngay créer ay cinq cent mille emplois un million d' chaque année. Mhm. chômage bi di gën a dem. actuellement il est de taux de chômage 46 virgule 7 pour cent je pense si je ne me trompe pas comprendre nga nit ñi di jël gaal yi di gën a dem. Hmm. liggéey amatul contexte pandémie bi. ñëw gën a lottal waaw nga opté politique de résilience. Hmm. ñu dajale 1000 milliards jox la. ba léegi mënuñu ñoo jox ay justificatif Mansour Faye ba léegi man de dégguma ko. ba léegi ñoo ngi koy dara leerut. ba léegi ñoo ngi koy xaar laa la wax hmm. ñaata weer ci leeral. ci 1000 milliards indi ko xam nga loolu. day semer esprit dubitatif ci bopp sénégalais yi François Ndiaye mu ngi koy xaar ba léegi dara yaa ngi dégg contexte bi la gën a méttee pour trouver sax ay emploi parce que politique de résilience la ñuy wax ak politique de relance mm-hmm. mais Macky Sall bi mu jëlee réewum ba léegi politique économie moom économique moom la raté parce que fii ñëpp ñi nga xam jàng nañ économie xam nañ mm-hmm. John Maynard Keynes mm-hmm. le père de la macroéconomie moom dani les deux variables fondamentales d'une économie, c'est d'une part l'investissement et d'autre part la consommation. Le financement de l'investissement permet une augmentation générale de la production, de l'emploi et des revenus. Et c'est ces revenus qui est alloué de nouveau à l'investissement. Ainsi, l'économie marche et se développe. Tandis que nous, bu fekkee ni dañ nekk ci benn gouvernement boo xamante ni il s'engouffre dans des investissements improductifs. exemple laa lay jox. Mm-hmm. xam naa ne ka ko yoroon sax wàcce nañ ko. Hmm. ñaata at chaque weer ñu ne ñu day daw day daw day daw. ak liñ ci def dépassé hmm. mille milliards di dem. et que quarante neuf milliards rek mënoon na di tabax ay hôpitaux yoo xamante ni de de dernière génération ñu def ko ci benn teer boo xamante ni matul sax cinquante kilomètres. mu jëm ci ay impôt Sénégal ak loo xam ni leb nañ ko yokk det beeg yooyu. mais fan ngay créer mm-hmm. fan ngay créer emploi bu fekkee danga bëgg a créer emploi mm-hmm. da ngay fexe teg ay unité de formation yoo xamante ni dañuy transformer ses ressources. Mm-hmm. ngay créer valeur ajoutée créer emploi loolu réew yëpp xam nañ ko mais sa jën jaay nga jaay nga géej gi. Sonko bu ñëwee loolu lépp lay defar non bu ñëwee ci raay yooyu la ñuy tegu. ngir jéem koo soppi parce que loolu lañ diggante ak sénégalais te bind nañ ci noir sur blanc. temps bi jeex nañu Assane ñu laaj la ci deuxième vague Covid 19 euh, ngi wax wax vaccin est-ce que yéen les patriotes pare ngeen pour vacciner wi contre la Covid 19 juste quelques secondes. saa amee lu leer. xam nga mhm. côté boobu sax man. Mhm. mënuma cee indi benn firnde bu parce que seen leader waxagul. waaw bu ma neexee. yéen Ousmane Sonko non bu ma neexee ma wax lool. waaw bu ma neexee ma wax lool bu ma neexee ma ni suñu parti politique defaguñ ci. xam nga boo nee leader sax ñun Pastef dañoo am leader mais dañoo am parti politique bien structuré. Mhm. am Moncap mouvement des cadres lépp ak lépp. comprendre nga. lépp lu ñuy def am ko ngeen gëm muy seen leader. waaw dama la bëgg a wax ñun ay mhm. idéologie la gëm ak ay idée mhm. Ousmane Sonko moo koy incarné am na ñeneen ñu fa ne. yaa biram Souley Diop yaa Bassirou Diomaye Faye yaa des cadres yaa Assane Diop yaa keneen ak keneen comprendre nga. idéologie boobu moo dugal nit ci Pastef leader bi bu doon woon incarner idéologie boobu ñun duñ ci dugg. duñ ànd duñ ànd léegi waa Pastef dinañ vacciné waaw wala déet. loolu mënuma cee waxagum ko lan la wax bu ñëwee ngeen vacciné wu wala bu leen vacciné wu. loolu moom parce que yéen j'en suis sûr bu Sonko ne bu bu bu leen. vacciné wu loolu j'en suis sûr ci si bëri. boo leen interroger ni ngeen toppee Sonko ni ngeen ko gëmee. ak jeunesse bi Sonko bu toogee def déclaration. Ah, ne bu kenn vacciné wu loolu moom mbaj gémmu ñu sàmbale. leer na ma ne du ngeen vacciné wu non non <laughs> loolu mbaj te xamoon lu mu walis li ma la mën a wax mooy. <laughs> micro trottoir fii boo ko dee sénégalais. Mm-hmm. la quasi totalité des sénégalais ne sont pas prêts pour se vacciner. Mm-hmm. loolu leer na quoi. Mm-hmm. parce que. Euh, vaccin dëkk bu nekk mu ngi génne naan vaccin moo gën a baax di semer ay doute. Mhm. am na ay dëkk européen yoo xaman ne taxaw nañ ne ñoom duñ vacciné mhm. comme ça ay ku ci mel ne Australie. am na sax ñu génne vaccin retire waat. waaw tu as vu même même euh, institut Pasteur retiré na. nag loolu pour man nguur nguur nguur nguur gu nguur gu dëggu. nguur gu responsable yooyu yëpp daf ci war di bàyyi xel quoi. Mhm. wax dëgg yàlla. léegi Kumba am na loo xamante ni faaw mu ko nit ñi ñu ngi dee chaque jour ay dix personnes. Hmm. démb je pense que onze. Hmm. deux cent communautaires ndax lan manqué oxygène ci hôpitaux yi. Hmm. c'est grave. encore plateau médical défectueux. c'est scandaleux. ça revient tout le temps. loolu ñun xaaruñu woon nguur gi foofu. alors là ma ne la santé bi ak éducation bi moom. le pays est à l'agonie. exactement tous les secteurs. ñu mën la comme comme màggat gu feebar fi mu nekk nii muy éducation bi muy lépp. voilà Assane temps bi jeex na moo bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waaw maa ngi euh, rafetlu. Mhm. émission bi mhm. di remercier ñëpp ñi nga xamante ni. bousculé naa la nag mais comme sax <laughs> ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi doon ñi ngi doon déglu di teewlu émission bi. wax dëgg mhm. yàlla. di wax ni sénégalais yi ñun réew mi moo ñu tax a jug. démocratie moo ñu tax a jug au lieu de la complocratie ndax gis naa ni on temps on est quitté la on a la démocratie pour tendre vers la complocratie loolu na ko sénégalais yi bañ. waaw loolu na ko sénégalais yi bañ. ba jeex di nuyuwaat ñëpp di nuyu patriote non dañuy dem ba jeex. loolu moom ñi jàmmaloon ñoo la gën a xam loolu ñu dañuy dem ba jeex di la nuyu yow aussi également wax dëgg yàlla maa ngi rafetlu bu baax a baax invitation bi euh, ku baax nga dañuy suivre sa émission gis nañu toujours. ay ay ay ay thèmes yu am importance ngay développé. dëgg FM est suivi quoi. Mm. ñu ngi lay ñaanal daal. Mm-hmm. ba ba mu mën a dem télé. Mm-hmm. loo loo xam daal loo maanaam. ñu tiire la quoi Rewmi FM. impulsé. Voilà. voilà merci beaucoup Assane Diop euh, kontaan nañ bu baax a baax ñu koy remercier mu nekk coordonnateur bu PASTEF euh, Rufisque di remercier Léon Paul euh, Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11 émission bi mën ngeen ko dégluwaat rattrapé wu ci suñu chaîne YouTube mi officiel wala ci suñu portaay internet réew mi comme Ndeye Comba Moreau di leen remercier bu baax a baax samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité.